ba tey ci seen scandale du jour euh, dama bëgg ñu seetaani Amadou Ba kon Amadou Ba day wax <laughs> ay campagne mën lu ne nañ dem seetaani Amadou Ba ba tey ci scandale du jour nañ dem seetaan. non seulement ils sont incompétents mais ils sont insouciants. J'avais toujours pensé que c'était des aventuriers. J'ai douté un moment. Maintenant, j'ai l'intime conviction. J'ai l'intime conviction qu'ils ne peuvent même pas diriger le Sénégal pendant deux jours. Ils sont totalement out. Et c'est pour cela que je compte sur vous. Debout pour que notre pays puisse continuer sa trajectoire. Debout, pour que l'on puisse consolider nos acquis. Debout, pour que l'on puisse aller plus loin et plus vite. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut faire encore plus, faire encore mieux et aller encore plus vite et ceci dans la plus grande rigueur et la plus grande transparence. E, Babou Lodjeri, Babou Lodjeri mu ngi gaar wala nee na non seulement ils sont incompétents Ne seulement ay waay doo sàmm kon Amadou day wax ni, si Amadou nak jël na courage am amé. waaye yéen dégg ngeen Amadou lu mu wax le reste des candidats nee ne non seulement vous êtes pas courageux mais vous êtes des incompétents yàlla baax na lii barke yonent yàlla moo yéex xam nga lii moo tax c'est nag affaire bi après dafa mujj mujjul neex sax parce que euh, ni mu waroon amee engouement xam nga gars yi di daw topp seen ginnaaw xam nga yooyu yëpp gisuñu ko fi daal xam nga mais nag ba tey campagne baa ngi neex li gën a neex ci campagne bi nag dama bëgg ñu seetaani parti Anta Babacar Ngom momit it mu ngi campagne waaw macha allah ndeya ndeya génn si nga ne ndeya bëgguma la siwal génn si yi nga ne way astaghfirullah saf ay way dama ay zee danga wor la yit wa anta waa sama tante ji waa Anta ana ñi la parrainé Anta ngi def nii rek te gisoo kenn garde kër yi ngay gis ak oto yi oto yu bari yi nag waa Anta tamit nag Anta waa Anta ana kat parrainage yi ñaata lawoon woon quatre mille xaw ma ñaata ay Anta secret dina génn nag secret yëpp dina génn ñoom ñëpp dinañu xool yàlla dina leen ne fang ñu xool waa yow Anta anta ana ñi nga yëkëti loxo ci vidéo bi yeen vidéo bi da ngeen gis mbolo yeen wala man score ge ma japp ni mënuma gis ay zé ay yalla vidéo bi foo mo xolaat ko xam vidéo bi rek ba xam nga koor gi dafa stress hé jakarta yaangi dox seen soxla topuñu sax anta ay nit kenn du ko def nii sénégalais yi nit kenn du ko def nii da ngay suturaal doomu aadama xam nga même bu fekkee àndoo ak moom doo leen jël ci cortège bokk ci cortège gi rek bokk ci vidéo bi ah xaw ma ku la vidéo waaye tooj na la anta ana mbooloo bi waa anta ana parrainage yi anta yow mi génn fii wuti parrainage ba ñu lacrymogène la ñu jox la lacrymogène nga naan ko ne da ngay xeex da ngay xul waa yow anta anta wala da ngeen di nelaw yewu leen anta ñëw na barki rasulil ay man anta Babacar layi <laughs> la nee na nii te gisoo kenn koy ne ni kan la say gardi keur yalla beure na sutura campagne gi de mo dak suba la tabaksi mo dak suba la gamu barki yonenti bi ha eh. ah. ñi pare ne woon anta ba da ngeen gedd ci digënté bi korité baa ngi ñëw te moom ay ginaar lay yar bu yeboo ngeen ne ci ginaawam korité baa ngi ñëw te ginaar dina manqué ah baax na man fu mu nekkee ni anta rek laay topp anta rek laay topp moo yor poulailler te korité ku wax korité ne ginaar.